asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi amaat nan jataa yëpp sant yàlla waaye santaat sëriñ tubaa xaadim rasul mu jataay bii nga xam ne ñi ngi ko amale fii ci kër sëriñ saalihu mbàkke xaadim rasul génne ci jumaa ji jële ndigal nag sëriñ tubaa cheikh mahamadul montaxa xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu ñëw ci sëriñ cheikh ahmadou mbàkke mi jëwriñu kër sëriñ saalihu ci liggéey bi nga xam ne baaxoo na du ko liggéeyal lislaam te saayu liggéey boobu noppee at mu jot dana tàllal loxo mbooleem jullit yi ak taalibey sëriñ Tuubaa yi ak xarit yi ak soppe sëriñ saaliwu yi ngir ñu bàddali liggéey ba nga xam ne dongoy tarbiya yi ña ngi koy liggéey ci daaru salaam Tuubaa daaru salaam di ngóobum tool ya fa nekk te xam ngeen ne at mu jot daana yabal jëwriñ ñu ànd ak doomam di sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom seriñ Modou moom sëriñ Abdoul Khadir mu fegoo ak kilifa yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi rawatina sëriñ Moustapha Diakhaté moom sëriñ Modou Khayri mi nga xam ne mooy jëwriñam ñu fas yéene yëkkati ay kàddu nag woo jëwriñ yi ñu baaxoo woo xamal leen liggéey ba fa mu nekk ak waxtu wan yi def def liggéey ba loolu moo tax ñu dajawaat fii ci kër gi. kon dañoo bàyyoo kàddu gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot li ñu ndigalul Serigne Cheikh bu noppee Serigne Moustapha Diakhaté woo kilifa yi nga xam ne ñoo war a jëm Touba Darou Salaam ci liggéeyu ngóob ma. ñu ngi ñaanal sunu yaakaar tey ak ëllëg seen Saliou Mbacké radiyallahu anhu yàlla na ko sunu borom dolli ngërëm dolli ko leer di ñaanal Serigne Cheikh Serigne Saliou sunu borom yàggal ko fi may ko wér may ko sago. bàyyi ko comme xelam ba li Serigne Saliou naaloon yëpp mu yàggaleel ko ko ba yàggale naa li boppam tan ànd koog moom ak njabootu sëriñ Saliou gépp waaw ah, noonu nga ko waxee ginnaaw bu nu jotee ndigalam mm, mu boole ñoog jëwriñam yi nga xam ne eh, ñoo yor liggéey bi sëñ Moussa Diakhaté mi jiitu ji ak euh, moom mooy yàgg sax ci turu jëwriñ ñi ci des yëpp waaye moom rek lañ ci tudd bu ko defee moom mu yàggale la ci des mu koy ubbil rek euh, sëriñ bi nam daa joxe ndigal noonu dafa yeesalaat ndigal li wax ne liggéey boobee nga xam ne moom la daa def lu ci tuba Darou Salaam Darou Salaam Maodo Mouride muy liggéeyub ngóob euh, moom la jox ndigal taalibe yi ak soppe yi ak wëllëre yi jaarale ko nag ci jëwriñam yi nga xam ne euh, ñoom la ma sa àndal liggéey bi hmm, liggéey ba nag sëriñ bi yóbbante na ak cant gu yaatu ak ngërëm ci li nga xam ne moo weesu ci liggéey bu sell wuy si gu gu ànd ak pasteef ak pas eh, ak liggéey bu sell bu ànd ak yéene boo xam ne moom lañ daan def cant googu moom la jiital doo ko joxe nag ndigalul ren ji kon nag dañuy sàkku rek ñu wuy nañ daan wuysee eh, def nañ daan def muy jëwriñ yi nga xam ne ñooy ànd ak mbooloo mi di ñëw ak ñi daan joxe seen wata jumtukaay yi ñu yóbbu mbooloo mi ñu dem ci jàmm ñu ci jàmm ak autorités yi nga xam ne e, ñoo ñoo ñoo ñoo ñoom lañ ko daan yëgal ñoom it ñu daan ñu jàppale ci. yoon wi ak ci nekkin wa lépp rek li nga xam ne seen wàll lañoom ñoom ah, loolu lépp ñu ngi leen di woo di leen soññ di leen ko yëgal gannaaw bu ñu leen sante ci taxawaay yu njëkk ya ah, barab ba nag day barab boo xam ne taxul mu jege lool ah, ba tax na waajtaay lay laaj ñu sàkku ci mboolem koo xam ne war nga faa ñëw rek nga bàyyi xel lépp loo xam ne da nga ko sox da nga soxla ci xeetu ngóobaan ak xeetu defukaayu ndox comme niñ ko waxee léegi euh, ci barabu dalukaay ba lépp luy baax ci kuy tukki ci àll rek te nit mën koo fàggu mu mu mu yóbbaale ko dañuy ñaan nag sëñ bii defal nu ci tawfeex bu baax ba ndam luñ ci daan am rek. Euh, mu defal nu ndam lu ko kawe ndam lu kawe njort euh, duñu fàtte nag sunu jëwrin yi nga xam ne ñoom laan ñoom lañ daan àndal liggéey bi ñu nekkoon ci sunu kanam doon ay jàmbaar yoo xam ne ay royukaay lañ woon ba néeg ni si ñoom ci seeni jéego la ñuy xool di dox mooy ku mel ne sëriñ Saliou mu sëriñ Abdou laat ak sëñ Mbay Jóob sëñ Maas Ñing suñ góorati nit ñi maanaam ma sunu magi taalib yi nga xam ñoom lañ daan àndal liggéey bi yëpp tañ mujj leen gannaaw kon ci turu njaboot gi yëpp njaboot gi teew fi yëpp noo ngi leen di fàttaliku di leen ñaanal yàlla yërëm leen te jéggal leen te dëkkal leen ci àjjana yi gën a kawe ah, di leen yéene wala it ci liggéey bii ñuy liggéey ak bépp liggéey bu ñuy defaat ba bañ leen fekke bismillaahi barkeb si Ahmadul Xadim moom sëñ Saaliham ci ndëgalul sëriñ sëriñ Abdou Lahad ñu wax turu ñi nga xamante ni ñoom la jëwriñ ñi nga xam ñoom la sëriñ bi woo ci liggéey bi ñu war a woo mbooleem ñu àndal ci njiital sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir di ca teg Moustapha Jaxate moom sëriñ Mouhamadul Xayri Jaxate sëriñ Jililoo Touba Kër Ñang sëriñ Xaadim Mbacke sëriñ Xaadim Mbacke Bawal moom sëriñ ma moom sëriñ Góoratin sëriñ Faadilutin sañ ci Daaru Salaam sëriñ Cheikh Modou Fall Baye Fall sëriñ Jili Ñang Touba Afia sëriñ Ibrahima Ngom Bokk Xadul Mubaarak sëriñ Asiiru Wàdd Kawlax ak mbooleem tund Kawlax wépp sëriñ Ibrahima Dara mi Louga ak mboolem tundu Louga yépp sëriñ Moustapha Guèye Daaru Taniifa sëriñ Boubacar Niang Touba Boqa moom sëriñ Mass Niang moom sëriñ Saliou sëriñ Lamine Diallo Touba Parcelles ak mboolem waa Ndakaaru yépp sëriñ Abdoulaye Fall Thiès ak Ousseynou Sakho ak tur ci turu waa Thiès yépp sëriñ Modou Lo campement Ngexok sëriñ Moussa Ndiaye ak sëriñ Saalihu Jóob moom sëriñ Mbay Jóob ci turu waa Mbuur ak mboolem tund wa yëpp aji jama wilaan kër laayin gépp sëriñ Lamin wilaan afiya murit alxaaji wilaan ci turu ngatu Malik sëriñ Maysa Géy waa daayira aaneen gépp sëriñ Aliwu Géy aaneen sëriñ jàmm sëriñ njàmme aan mboojeen daairatu mboojeen ci turu sëriñ Daawda Mbooj ak sëriñ Bàcci Mbooj sëriñ Saam Saar kër Seex sëriñ Ibrahima Aale si Daaru Salaam ak njabootug sëriñ Mor Xari si sëriñ Mourtada si ak njabootug sëriñ Malick Baasin si sëriñ Abdou Samad si di jëwri ni liggéey bi sëriñ Alhaaji si Daarul Minan sëriñ Baara si sëriñ Moodu Mbàkke si Touba sëriñ Abdul Xaadir si sëriñ Basiiru si sëriñ Cheikh si Kura Murit sëriñ Mor si Kura Murit sëriñ Moodu Lo Touba Alimeda sëriñ Muxtaar Lo Touba Ali Mbenda sëriñ Abdou Ndaw do di doomi Baye Cheikh Ndaw moom Maodo Murit alxaaji Souleymane Ndaw caxaj alxaaji Ibou Seck ak waa Taïf Cekkeen gépp sëriñ Sakooji Saw Taïf Cekkeen sëriñ Cheikh Sarr Touba Caareen sëriñ mbayloo Loo caxaj ak njabootuk sëriñ Ali Mbenda gépp sëriñ Baara Si Sil sëriñ Amaat Seck Kuppantum alxaaji Seck ndimbalaan Koungheul alxaaji Ibrahima sa Ndaw alxaaji sëriñ Mor Lawa Mbeng Kura sëriñ bi nee na nag mi ngi woo mbooleem transporteur yi mbooleem ñi nga xamante ni baaxoo woon nañ di leen di di ko abale di di joxe seeni wata ak mbooleem koo xam yaa ngi dégg kàddoom mu ngi ñaan képp koo xamante ni yor nga wata rek maanaam ta nga mën a ta nga mën ta mën koo able ngir yàlla ak mbooleem ku ku jëwriñ ju la jege rek nga def ci jàppandal transporteur nag mi ngi ci jital sëriñ alhaaji Mbay Touré Touba alhaaji sëriñ alhaaji Abdoulahad Ndiaye sëriñ Xabaan Aan campement Ngexoog sëriñ Baara Seck Kaolack sëriñ Ousseynou jóob Xaahira sëriñ Babacar Diop kër Madiane kër Madiasine Baba Diop kër Madiasine Modou Diop kër Madiasine sëriñ Abdoulahi Dieng Kaolack sëriñ bi nee na mi ngi fàttali ne liggéey bi nag liggéeyub ngóob la ngóob nag dafa am jumtukaay yu mu laaj jumtukaay yu mu laaj nag la ci jiitu mooy ngóobaan lay dagg lu xeetoog paaka wala lu xeetoo ngóobaan ni ñu ko baaxoo gisee waaye nag na ngeen ñu xam ne ni dugub jiit luñ ci dagg dañ koy takk ay say say ya nag la koy takk mooy ay buum am na buum yuñ baaxoo yoo xamante ni lu ñuy tiri la ak fu maay mën a mën a amee buum rek wala mboolem koo xamante ni yaa ngi ci euh, yaa ngi ci àll bi te mën a am euh, xaañ ci mën koo indaale ndax dugub jëpp dañ koy takk def ko ay say mi ngi ñaan nag liggéey bi sell buñ koy dagg bu nu dagg gi gi nan ko dagg ci loo xamante ni day mel ne da nga weesu tuuti ci ci ci ci ci ci da nga dox tuuti ci biir gub bi ba ngay dagg dana bàyyi dana dana bàyyi gi tax ba daggin wu sell te bañ koo sànni bañ a waddal bañ a rotal te te bañ koo safaane takk ko takkin wu sell gàdd ko yóbbu ko ba fañ koy sëpp nga teg ko te bañ a takk te bañ a tekki buum ga te wutiwaat geneen buum noonu la ko sëriñ bi bëggee noonu la ko donga yi ko liggéeyoon doon bëggee kon nañ ko defee ni ñu ko bëggee te daje nga xam sëriñ bi sëriñ bi nee na nag mi ngi ñaan képp ku fa daje ku fa ñëw yàlla na yàlla na nga dajee ngërëmul yàlla ak yonente bi ak sëriñ Tuubaa ak sëriñ Saalihu te yàlla na ko jariñoo ci daraje sëriñ Saalihu sëriñ bi neena na liggéey bi mi ngi ko jàpp ci euh, gaawu fukki fan ak juróom ci weeru octobre la 15 octobre dëppoog fukki fan ci ci weeru octobre dëppoog euh, fukki fan ak juróom ñett ci weeru gàmmu ci weeru gàmmu euh, ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi jóg ñu ngi leen di ñaan na ñëpp sëlmal ajjuma doog a def doog a jóg sëriñ bi nee na ñëpp sëlmal ajjuma ginnaaw ajjuma ñu doog ñu doog a départ bi mooy ajjuma waaye sëriñ bi neen mi ngi ñaan na ñëpp julli ajjuma sëlmal ba noppi doog a doog kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ngeen daje ceeg taw feexi sëriñ bi ak ndimbalam ñi ngi koy ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko lool tey ñaanal sunu mbokkum donga mu ñu wax sëriñ Jili Gay bokkoon ci nun te bokkoon ci jàmbaar yi lool yal na ko yàlla dolli ay leer ak xéewal ci barke sëñ Tuubaa sëriñ bi nee na kon lii rek la ne woon naa ko wax. jërëjëf sëñ Abdou jërëjëf itam sëriñ Moustapha Diakhaté eh, kon mbokk yi woote baa ngi noonu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mu sëriñ Salihu woote ko ñu ñaan son boroom gën ko fee yàggal gën a dolli ak wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko. Eh, mbokk yi transporteurs yi nag rawatina chauffeurs si sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttaliwaat yoon wi. ñoo xam ne yoonu nawet la te aw yoon boo ci gëjee daaw ba nga di ci jaaraat war nga ko bàyyi xel bu baax a baax kon safoor si nañ daw ndànk tey bàyyi xel yoon wi képp koo xam ne nag yaa nga woon ca liggéey ba te bëgg ci ab jokkoo bu gën a leer. numéro téléphone yaa ngi nii sëñ Moustapha Diakhaté 77 641 13 77 wala 77 648 98 28 wala Serigne Malick Samb 77 502. 65 00 wala sëriñ Jili Abdou Khadir si mi fi teewal waa saalum vingt Saloum 77 424 65 78. buum yi nag la ñuy sàkku képp koo xam ne mën nga koo àndaale nga wut ko àndaale ndax mooy takk la nga xamante ne bii moo di gub ya ñu ngi ciy séentu ñëpp nag di ñaan képp ku fa teew yàlla yàlla faj sa aajo ci barkeb sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.